continuer rek avant ngay xuus nag dafa am ku commentaire benn commentaire bu am solo. Mhm. nee na sunu bi daf ko bëgg papa. Mhm. nee nga xam nga lu tax nee na à chaque fois dañuy yeete mais ci kaw yeete boobu dañuy waxtaan. Mhm. yaa ngi comprendre te Faye nee na plateau bi actuellement da ko soxla ndax coronavirus bi ñëpp la sonal ñëpp lay bëgg def loo mhm. mais moom depuis mu ngi euh, depuis bi émission bi commencé mhm. mu ngi jàkkaarloog ñun di retaan ndeysaan ndeysaan kon voilà <laughs> Sénégal macha allah ko mhm. uh-huh. damay continuer rek damay dem euh, fële parce que le sous-préfet de Dakar Plateau Djibi Diallo moom nag dafa interdire euh, lépp loo xam ne rassemblement la ba ci li nga xam ne mooy mariage baptême lépp loo xam ne day réunir ay nit rek moom daf ko daal di interdit. ba je pensais que même Macky Sall moom aussi dafa inter euh, moom aussi dafa tëj école yi pour trois semaines euh, kii tamit euh, rassemblement religieuse yi nga xam ne mooy am daf ko bëgg a pour un mois mhm. ba ñu régler cas yi waaw xam naa day fagaru rek mhm. léegi nag cool yi mooy kasu rajab ndax dina am wala du am hmm, moom moo xam ak euh, yàlla ak yonent bi ak seen Touba <laughs> ginnaaw mooy njiitu réew mi moom ak yàlla ak yonent bi ak seen Touba seen Touba ngi fi. Mhm. Ah, seen Touba ngi mhm. ah, mais mais euh, Kazu Rajab ñoom ñoom ñoom maanaam suñu sañoon dañoo bëggoon Kazu Rajab bi buñ ko mënee aj ñu daal di koy aj ba li nga xam ne mooy maladie bi wàññeeku vu ka cas yi foofu la ëppee fële ca Touba. waaw ñaan na ñaan na pour euh, sëriñ yi daal di waxtaan ak taalibe pour mu ah. éviter rassemblement ñu ngi waxtaan fi mu ne. instant nii euh, instant yi euh, ziar général bi nga xam ne moo waroon am suba. Mm. annulé nañu ah, loolu fan la ci waawan waaw waaye danga ne ñaan na pour sëriñ si waxtaan. pour waxtaan ak taalibe yi. waaw fi mu ne waxtaan ni waxtaan fi mu ne. pour <laughs> loolu leeru ma nag. waaw dama xamul su ma xamoon nax nax. boo xam nga yow danga ma ne dangay dellu Touba. tuuba waa Touba laa dëkk di. non dangay dem Kasu Rajab. Touba laa dëkk. waaw dëgg la Touba laa dëkk. Mm-hmm. maa ngi dëkk Touba. maa ngi dëkk Darou Rahman ci sëñ Modou Abib Mbacke. li instant yi daal ñu ngi déglu sëriñ si. waaw fële ci Touba ñu xool lan mooy seen déclaration ndax euh, màggal Kazu Rajab dina am walla du am. Karim Ndaw maa ngi lay nuyu de passage di la wax ni. Euh, nuyul ma waa soo demee Kazu Rajab incha allah. ñoo ko sëñ Touba ñoo ko mhm. kii su fekkee nee nañu kii doonoo kii doon ñaan sëriñ si waxtaan ak ñoom pour nu aj Kazu Rajab. Mhm. waa ñoo ko sëñ Touba sëñ ngi noonu. waaw <laughs> sëñ Touba nga Touba. waaw ma nga Touba. Mita lii laa andi woon buzz de la semaine mais xam naa ni euh, lii du doy ndax tey suñu sujet si lii la basé wu donc. Euh, ah, dañuy gën a xuus rek. Mhm. waaw dañuy waxtaan mais ci kaw waxtaan dañuy jéem ma yeetante mais ci mhm. kaw waxtaan. comme mhm. ni ko internet boobu defee léegi nii. nee na moom euh, mu ngi dafa stressé wu mais def bi mu commencé si daan émission ba tey moom mu ngi kontaan mu ngi retaan loolu moo tax nag émission bi ajuñu ko ñu def ko comme actuellement dañoo aj léegi kenn xamul kañ la. kenn xamul fan la. kenn xamul naka la en ah, papa. dañu hmm? jéem a dund rek nañu jéem a dund suñu dund. mita euh, balaa balaa ñuy ñëw si loolu gis nañu aussi que étudiants yi bi ñu leen annoncé que ni dañoo dañuy dañuy suspendre cours yi pour trois semaines hmm. dañoo nekkoon di di di di di di feete loolu per maanaam feete di di yuuxu kontaan dañoo kontaan maanaam. waaw léegi. Hmm. léegi feete ga. feete nañ waaw waaw dañ doon jubilé nga ne. voilà dañ léegi. Mhm. li ñuy jubilé ndax njàng mi nu aj moom moo tax. njàng mi nu aj moom moo tax wala feebar bi dugg moom moo tax su fekkente ne njàng mi nga xam ne dootu nu jàng école. Mhm. moom moo tax nu jóg di yëkkati seen loxo di jubile mhm. yooyu élève gërëm. waaw papa looloo am looloo am nag instant nii. su fekkente ne bëgg a tourné yi. nga xam ne épidémie ñëw na ne veut pas dire laisser je pense que tey doon na waroon daw dugg seeni biir néeg. Mhm. tëju gën a génneewaat livre yi. daal ne largement le temps. Mhm. c'est vrai. di jël cours yi par communication. muy ñëw. Mhm. ñuy gën a améliorer seen performance. di gën a jàng. ah kon fi mu ne la tax ñuy jubilé mooy tey am nañu largement le temps. Euh, su la neexee nu la neexee nu dem kii ab ba su la neexee nu dem boîte. jàngeetuñu te. du am dara lu leen mën a reprocher mhm. surtout les paresseux les médiocres les nullards yi nga xam ne tey actuellement comme aj nañu école tey aj nañu cours yi am seew nañ koy def mhm. ndax c'est des médiocres mhm. c'est des paresseux daaw na am note yu baax ñooñu lan moo leen gënal dem di vadrouiller ça et là un peu partout dem di def le mauvais garçon fille comme garçon ndax am na fii yu am na fii yuy jubilé mm. comme am na garçon yuy jubilé ñoon day am ñuy dem mm. loolu naqari na ma torop damaa yaakaaru ne doonuy jooy tey daal ne retrouvaille bi épidémie bi mm-hmm. yàlla na suñu borom def mu mm-hmm. gaaw jóge fii yàlla na suñu borom def lii mu yem fii mm-hmm. loolu laa yaakaaroon ne moom na ñuy daw ku nekk di mer naan o oh, sunu cours yi eggul leçon tel eggul ñiy def mat ñiy def PC ñi nekk fak science histo géo ñëpp ku ci nekk tey la nga waroon a xam te jotagoo ko xam te nga tollu woon fa mhm. ngay mer ndax li mu duggul soo demee di ko jéem a jël mhm. à distance effectivement père euh, dafa am benn message bu ma jot léegi yaa ngiy tudd euh, boîte de xale yi dañuy préférer dem boîte ko toog di jàng mhm. am na ñu euh, ki ma message nee na lan moo tax instant yi nii ñuy wax ci rassemblement religieux yi basé wu kese te waxuñu ci boîte de nuit lañ leen fermé ah! boîte de dañ leen war a fermer. lu mais nii loolu la ma kooku laaj moom ma laaj la ko yow. waaw man nag doom xam nga ne yilifuma réew mi. Mhm. Mhm. citoyen laa fi. ay réew mi. du ma politique. <laughs> kon ñëpp nii la ñuy def mënuma politique. Mhm. ndax du ma fenn politique ñu ñu ndaxte ki nga xam ne tey moo fi nekk yi ñu ministre yi muy Mohamed Boun Abdallah Dionne. nee naa la ñoo bokk def sem 1 ba def sem 2. man ak moom ci Pikine ñemewu maa toog ci ab tele di fen loolu Baye Ibra John ñu koy wax le commissaire mm-hmm. moom mooy baayam nday maa jigéen moom mooy maamam saa yu nu ma saa génn école seen kër nan daan nekk ci commissariat man Massata Sène Momar Diop Abdoulaye Mbaye ñu ñëpp biir police nan daan foowee waaye man mënumaa politique mm-hmm. duma politique ku nekk ak li nga mën sax mënuma ko. ku nekk ak li man lii. Mhm. nga xam ne démb ak bërki démb. Mhm. moom Mohamed Boun laa xam na xam na sama situation. Mhm. xam na ndax milliard laa woon ak xam na lan moo tax percé wu ma. ndax xam na sama famille xam na baax ñu dëkk Pikine ñoom Massat Sène Bamba Diop Momar Diop yéen ñëpp xam ngeen na mu demee woon. xam ngeen ne je m'occupais de mon père mais ñoom Mohamed gënuñu ma woon brillant. père mën nga toon ci euh, question boobu noonu. waaw muy. Euh, kii lan moo tax tëju nu lan moo tax ñu base ñu tout le temps depuis hmm. dañoo yi war a arrêté lii a arrêté hmm. lii hmm. alors que euh, boîte yaa ngi ubbi nit yaa tëgg si boîte yi boîte yaa ngi am soirée te kenn waxul ni nañ ko tëj mais papa balaa ngay tontu rek Aïcha xam nga man moom bu ñuy def direct sax damay jàkkaarloog sama téléphone pour di mën a jàkkaarloog internet yi mais am na ku tudd Mamadou Mbaye moom nee Europe dañoo tëj discothèque yëpp nee na peut-être Sénégal la mais Mamadou Mbaye nee na moom depuis Europe. Mhm. discothèque yëpp la ñu papa. waaw. du rassemblement nanu wax rassemblement ne daje mhm. ah. donc ñu def ñaan tamit bu ñuy fàtte bu ñuy julli individuel léegi. bu ñuy julli individuel. maanaam tey jii tey jii le problème.

Sénégal lu Franc doon ñu def ko lim laa ko naroon def est ce la mënul topp daa mel ni trois semaines lañ wax de. kon kay feet la rek. maanaam feet la jël rek. waaye ñun suñu examen yi bu waay. papa mi ngi noonu vidéo bi nga doon laaj ci sànq mooy étudiants yi nga xam ne ñoom dañ leen jox fête pour trois semaines amuñu lu ñuy def lu taxaw di jubilé. mi ngi noonu papa pauvre étudiant. pauvre étudiant pauvre étudiant waaw ma ne ñii ñooy aspirer ëllëg nekk ay PM ay premier ministre ma jaaxal ñii ñooy aspirer ëllëg nekk ay médecin mhm. te nga xam ne médecine sept ans nañu wax de carrière nga soog a def sa thèse médecine du jeex mukk ci këru àdduna mhm. te toujours da ngay jàngi ñii ñooy dem fan na ñuy dem gune yi nañuy dajee li gune yu jigéen ñi ñoom nañuy dajee li am na ci aw jigéen ñuy jubilé gis naa leen. am na ay jigéen ñu naan ñibbi ñibbi. <laughs> léegi suñu demee kaye yëpp tëj nañ ko. Mhm. jeex na ci kër àdduna dootuñu ko yër. Mhm. xamuñu waa nent nu muy mujjee ak i bëtam yàlla na fi feebar bi yem. Mhm. ba ñoom ñu delluwaat dem jàngi waaye damay laaj ndax ñii ñooy aspirer ëllëg nekk président de la république te pourtant ay président ngi ci ñoom ah ba président président Macky. Mhm. président Abdou Diouf. Mhm. mës naa toll fii. bu mhm. sonn mës naa nekk gone toll fii am na benn élève bu publier sax. nee na euh, fem euh, waruñu woon tëj école yi parce que da koy daf daf koy yàqal dootul dootul mën a gisati copain dootul mën gis. copain ba élève bi jigéen la. ah élève bu jigéen. <laughs> mu ne waruñu woon tëj école yi ndax dootul am opportunité. pour gis copain waaw waaw waaw di gis kii am ah, waaw te lii loo ci wax lii. dama laa wax dama mhm. ay misaal yu sunu borom joxe yoo xam ne fi nu toll tembe da koy gis. Mhm, c'est ne naa la bu njëkk ba ay at juróomi at nit ko dee. su jaaree di ko tàgge ji nit ñi doon seen gémmiñ ne àddinaa ngi tukki juróomi at ba tey ñu dema dem ba nga xam ne dee gi ni mu takkaat naa takkarnaase nga xam ne moom moo causé li tax tax ñu tëj école bi mhm. kooku xalaatul dee xalaatul ndax dina mucc mm, ci épidémie bi walla jéemu ca taxaw ubbu di ñaan balaa bi sunu borom fanq ko mm-hmm. mu bañ bokk mm-hmm. jéemu ko nee na nu muy def bëgg si copain ba copain mm-hmm. bu góor. Mm-hmm. te xam naa soo demee ndeysaan dina nuy lëkkaloo. <laughs> ah wala yaakaar ne dina nuy lëkkaloo. ah, ah papa nag lii dañ ci ah? toll. day koy lii dina nuy te Algérie amul ah. Algérie amul loolu ah? nga xool nag ñooñu nga xam ne sunu boroom a ngi jàkkaarloo ak ñoom ñuy defee maa tey. Mm-hmm. di jëfee maa tey. moom laa la laaj te tontu woo ma ci ndax suñu borom nit su ko neexee du jëfee ne man maa tey te kenn mënu ci dara. loolu moom père kenn waxatu ko suñu borom moom. nee na sama copain dootuma ko gis. Mhm. école warutoon a tëj parce que. c'est grave. Ah. yow école xalaatoo ci jàng. xalaatoo ci jàng lu yi ngay am. maanaam lieu de rencontre bi nga war a gis pour di daje ak. ak sa élève yi léegi noonu la vu que parce euh, que vu que seen parents yi. peut-être dañ leen di fiire wala dañ leen di tere génn mhm. ñoom ci jàng bi la ñuy profitoo mhm. pour mën a gis seen copain foofu nag photo mita foofu photo parents yi la mhm. parce que sa doom war nga ko mën a may kanam ba ku ko bëgg seet parce que bu njëkk ba kuy seet sa doom day ñëw ba sa biir kër seet la seet ko donc euh, waruñu euh, tere xale yi jigéen yi pour seen copain di leen ñëw seet parce que moo gën ñuy profitoo si jàng bi pour dem seeti seen copain parce que mënoo chaque jour nga topp sa doom ba école mënu nekk yow fi nga toll nag dadi nag yow Mita ak ay Aïcha mhm. seen digganteeg yàlla fii mhm. ngeen toll mhm. mën ngeen maa indil koo xam ne ku am njariñ ku leen mën a yor ku am seen avenir doon seen moroom ngeen tolloo ay at mënu leen ko mën ta am c'est impossible dama ne internet yaa ngi nii j'ai pas bien compris waaw mais yaa xam soo ko c'est parce que non c'est parce que tu vas faire sourde oreille déglu li ma la wax dama ne âge bii nga am. sooy lëkkaloo sa morom ngay lëkkaloo ndax doo lëkkaloo ak sa moromu papa. am na tey sooy am copain du doon sa moromu papa. sa morom lay doon. dama ne ak at yii nga am. fii nga toll ci âge bii nga toll. ndax mën nga maa indil koo xam ne saw far la. daf lay labat ngeen tolloo ni tolloo jamono. mu baax. li war a nekk ci moom nekk ci moom. mu yiw ma war a gis ci moom loo xam ne war naa mën a tax ma accepté ko ci sama kër muy ànd ak sama doom mhm. ba pare mu tolloo ak yow am at yi nga am ba pare am njariñ amul mais amul génn góor goo mu am njariñ am na am na. amul góor goo maaseel mu am njariñ mën laa defal góor goo am na barke borom Tuubaa Mbàkke amul. père père père góor goo maaseel mu am njariñ daal di tekki fi mu ne amul. papa dañuy def dànk rek <laughs> li ma wax kay xam ne man waxuma ak yéen ñii laay waxal. waaw dañuy rek di ñun. seen morom mu am njariñ fi mu ne am na. am na père ñaataat nga. tubaab mën a wax ñaataat tax doo wax ñaataat nga kon nag bul ma laa loo ma laaj ma ah kii damaa bëgg nu xam ndax sa baay day fenam déet laa am. ñaar fukki at ak ñett gis nga ko ci réew mi koo xam ne fi mu ne mënal na boppam. liggéey ci jàng fi alxuraan wàcc mën ñaar fukki at ak ñett amul amul amul amul amul mën na noo yor jabar waxuma loolu mën nañ ko mais dama ne sa morom mu may libéré mën nañ ko yor kay. ndax jabar kay mën na laa yor. mën na sëy ak yow. mais mu am njariñ ah ñaar fukki at ak ñett nag. am njëriñ financièrement ngay wax. dama ne mu am njëriñ mënal la li ñuy séentu ci nit. nekk fi mais attends je comprends pas ndax am njëriñ financièrement ou pas. yow yaakaar nit ñi doon jàng. dañuy jàng. ba pare nga naan nga nga ne parents yi ñoom ñoo ko def ndaxte doon leen a war a bàyyi ñuy ànd ak seeni i copains di non non loolu nga wax loolu nga wax parce que dafa ne laa faute aux parents ndax parents yi mën nañ leen a mën a may kanam ba seen ma dama ne waaw loolee ma déglu déglu commentaire yi dama ne commentaire yi seen parents yi war nañ leen bàyyi copains yi leen di seet ñu ñëw ba seen biir kër moo gën ñuy gisante ci mbedd bi waaw mais li ma wax leer na man kan laay autorisé mu dugg sama kër ci ñi nga ma woon léegi ñi ma écran bi woon léegi indiwaatal ma ko indi waatal ma ko gone yii kan laa ci mën a libéré indi waatal ma ko rek papa uy ma dañuy def ba mu indiwaat ko ñii gune yi gisuma ci ku ñemee dugg sama kër dañuy def ndànk rek papa ñu waxtaan ah, ñu déglu ko bàyyi mu dugg ci kër <laughs> waaw papa doo ma déglu yow <laughs> gune bu tuuti gu toll nii <laughs> amul la njariñ man mu romb ma sama buntu kër ma tëdd sama pilien xam nga ma di nafar wala may réviser père kon yow da nga yow si xaalis ngay xool kuy seet daf laa mënta yor bugguma nduxum am ndax su ngeen demee ci biir xaw ma lu ngeen fay def xaw ma lu ngeen fay def sa copain la sa copain la su ngeen lëloo ba wéet xaw ma lu fay xaw. mais père looloo dafa am parce que da ngay si salon la ñuy toog saay saay ak taalam. si salon la ñuy toog ak yow man maa bëggut ñii di dugg sama kër. <laughs> waaw pour muy clair man maa ko mais papa xam nga fan man papa xamoon fan laa la meree papa. fu la neex parce que dans règle y des exceptions papa. voilà. ci règle boo gis. Ah. compter boo gis ci un la commencé. waaye ci ma bàyyi la ak say morom ci non non taxawal non non waaye non man Aïcha li mu wax je suis pas d' accord ah. <laughs> ça dépend de l'âge. tout. école tëj na valise yi na génn. ndax kilifa yi doon mais père man waxuma ñii. ah déedéet yaa ne seen morom ndax. mais père am na ñoo xam ne liggéey mais am na ñoo xam ne nekkuñu ay. étudiants mu ne sa wax ne dootu gisante faram nu mu toll. père kooku ki ko wax ak man du benn ah, xale bi ko wax ak man du benn père ah, man ñi nga xam ne autorisé naa leen pour ñu ñëw am na ñoo xam ne euh, am nañ vingt deux ans mais ñoom pare nañ financièrement du ñu ay étudiant peut-être am na leneen lu ñuy def yëngu du ñëpp ay étudiant waaw am ah, na ñëw waaw man kay loolu laa bëgg man foofu laa waxee li may bañ mooy kuy ñëw la père nañ dégg li may bañ mooy kuy ñëw di jàdd ak kii mais day ñëw takk na xale yi nga xam ne ay étudiants la dañuy jàng ñoom takkuñu dañuy wër di mais yow yaa wax ne lii am na ci koo xam ne nee na. waaw élève bi ko wax ak man du benn. élève bi nee na eh, moom eh, xam nga tax man du ma d'accord ak yow foofu. Ah. Uh-huh. parce que élève la. Eh, élève la de man ah, ah. je suis pas d'accord avec avec avec cet élève là. je suis d'accord avec elle tuuti naan fi mu ne mënatuma jàngi ndax dootuma gis sama copain. je suis d'accord avec elle sama copain. mais léegi Aïcha ne ba xëy na daal ne la faute aux parents ndax. doon leen war a jox liberté boo xam ne doon war a dugg ci kër gi. gunay ndaw yi gunay ndaw yi dinaa leen uppal seen. mais est-ce que doo ma bàyyi ma exprimer ma wax ma expliquer li ma bëgg a wax. voilà. Aïcha bi may wax ni mm-hmm. euh, laa photo parent <laughs> waxuma que ni dañ leen di euh, pour mu bàyyi ki nga xam ne. Ah. déglu ma waxuma pour mu bàyyi ki nga xam ne étudiant la pour mu ñëw seet si ko. bi ma nee photo parent dama ne am na xale yoo xam ne. Mm-hmm. seen parents yi dañ leen di fiire bugguñu ku leen seet si si kër gi. alors que toll nañ si. mais wax na dëgg mais père xale boo ko fiiree. xale boo ko fiiree tere ko ñu seet ko. si jàngi bi si yoonu jàngi bi. lay profité di def naka su dul noonu. affaire am la man foofu laa waxee. mais je veux pas mais waxuma ni étudiant bi si bopp étudiant yi pour ñu bàyyi la ñu ñëw seet xale yi ñuy génnante loolu waxuma ko. loolu yamal xayaam. Mm-hmm. kenn du la ci duma. ñàkk nga sa kër tëj nga ko def nga li nga xam ne yow sa devoir la. mais yaa ngi lool sa doom parce que xale bi dalay leer ni parent moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo fermé porte yëpp moo tax mu toog naan sama ko fan laay gisatee sama copain. d'accord léegi kon kooku dégg nga de mu wax mu ne kii parent moo fermé ang yëpp. porte yëpp amul fenn fu nu mën a jaar. mais papa foofu war nga mën a d'accord ak man tamit nga xaw a déglu ay. sa tuuti rek maa ngi koy déglu nga xaw ko déglu parce que nee na. Mm. boo demee ba toll ci. Mhm. waxuñu élèves man je suis pas d'accord avec les élèves yi nga xam dañ leen sant pour ñu jàng ñu nekk defaram toog ak amouraché de gauche à droite. je suis pas d'accord avec elle mais Aïcha je suis d'accord avec elle. ci benn côté maanaam. mooy ba tollu ci boo demee ba toll ci. jërëjëf léegi Aïcha. waaw.